min bokk moom région bi région Matam mi andi ɗum ko wona hannde mu ne xam na sëriñ bi nag lu jiitu tey jii ndeen ko 2004 haa 2006 mu ne 2004 ba 2006 dibbi boobu la xam sëriñ bi mu Ceerno Mouhamadou Amine Ly hakkillam meeɗa ɗo iwde mu ne xelam ak xalaatam it musul jóg ci kër gi allah e baawɗe mum yalla nag ci kattanam waɗi ɗi kam o wattidiri kam aussi e yimɓe ɓe suuɗo o mone yalla boolena ko it ak njaboota dëkk bi muy njabooto ceerno mouhamadoul amin yalla boole na leen ak moom mi gouverneur ɗum ga ɗo kolta musidɓe kewɓe mone dum ga fi yalla may na ko mo am fi ay xarit yu bari mi limta ko heewi mone duji waññee lu kono oɗo jooɗiɗo ɗo ceerno ahmed baba mone wawi kintok fii mo ceerno mahmed baba collègue am mone haritam la ko miñam mone rakkam la ko musidɗo am mone haritam la ko nit nit ku baax la hit ci njabooti kër gi la bokk moom ak ceerno ahmadou li ceerno ahmad li en gandodiri li bondiri e oɗo ziyara mu ne bokk ni ne it liggéey ci bile ziyara ha allah waɗani en ko keɓɗen mu ne a ah, ba yàlla defal nañu liñ jot lii yettere allah mawde loolu nag ñi ngi tey sant yàlla bu baax toujours mi waɗat rappelé mu ne toujours dafay dem ci feddali min mboɗo tami yaakaar e sénégal mu ne moom dey gouverneur am na yaakaar ci sénégal bu baax yaakaaroon noonu ko yaakaar bi nag lan mooy sababu yaakaaram ci Sénégal wonaa minen yimɓe laamu mu ne duhud ñoom ñi feet yo am nguurdi yimɓe laamu nen woodi leyɗe fof mu ne nguur bépp réew yaakaar Sénégal mu ne waa yaakaar ak njortey waa Sénégal doyɗe mbaare ni mu mooy ñu am kenn yoo ne dañoo mel nii Thierno Mouhamadou Amine ñu nen lii joyde mbaɗen ɗi kilifaji allah joɗini fuuta ɗo mone kilifi yi nga xam ne ñu ngi mel ni ceerno mouhamadoul amin yàlla déddi leen ci fuuta gii aɓen ñaago jamma e ñalowma ñu nekk jël seen i kurus di ñaan guddi ak bëccëg ba ko de def jamma ci senegal ɗum waɗi minen tami espoir e hoolare sénégal mu ne looloo tax ñoom gouverneur nguur gi ñu yor am ñu am yaakaar ak kuulu di ko ci sénégal o oh, sénégal mu ne sunu sénégal ji e barke ɓe suñu mag ñii e nun e mumen e allah ak seen maanu ci wàllu yàlla sénégal ko jàmm allah watte mu ne sénégal incha allahu jàmm rek la fi yàlla yi def alaa ko kulmi mu ne moom gouverneur de réglo bi mu ne amul lu mu yaakaar leneen bone mu ne lu musiba en na woɓɓe mone ñaaruɗo ñuggu so ñumma keganani kono ko en nanat rek wawi musiba sénégal ñu koy dégg rek wawi ha feewi sénégal mone wawi musiba bu jublo sénégal ɓe ñaagoɓe duwo mone ñu ñaan len ñoom sëriñ si mu ne seen ñaan ñoom kilifa yi dana dem sax ba yegg yeneen réew yi ñu dëkk. mu ne loolu moom gouverneur lu mu gëm la ci biir xolam. mu ne looloo tax. mu ne ñoom ñii ñoom ñii fi toogal nguur gi. ñu di leen di wax pouvoir temporel. mission amel. mu ne seen mission ñoom wala seen liggéey ñoom. woni jokkondirde ɓe ɗo kalifa mu ne mooy ñoom ñu jokkowante ak kilifa yi diine yi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ci Sénégal kala komin mbaawi yonnude min jotno mu ne ñoom gouverneur en lépp loo xam ne man nañ koo rafetal ñu rafetal ko kala mo allah arsiki hen ko lira needi e ɓeeɗo kilifa mu ne képp ko yàlla dimbaleji ñoom wurtagal la nga am yar a teggin am ko jigéen fi diine yi kamɓe mbiyete pouvoir spirituel mu ne ñoom ñoo tuddee pouvoir spirituel spirituel waaw woni wallu diine o mu ne ñoom ñoo dimbalee diine chance Sénégal noonu. mu ne chance Sénégal nag. yàlla ko war pouvoir spirituel woni yimɓe diine ɓe mone yalla dafa def ñi xam ne ñoo féete ak diine ji ɓe jiɗi pouvoir temporel yimɓe aadaji mone yalla may leen moom sëriñ si ñu bëgg kilifa yi aada yi mooy ñi fàtte am nguur gi